Euh, ba proclamer résultat provisoire u élection législative du 31 juillet 2022 tey dañu am mbégte euh, jàkkaarloo ak euh, peuple sénégalais ndaxte résultat la yoo xamante ni résultat élection yoo xamante peuple bi dafa mesurer bu baax a baax solos ak dayo bi nga xam ni la am kon tey jii bu fekkee ne peuple bi dafa engagé wu daa dee réaffirmer andam ak déggoo ak président bi ba jox ko majorité à l'Assemblée mënuñu dudul rafetlu ko te loolu tey jii moo ñu fi taxa taxaw euh di del ñukkel euh leaderu Macky 2012 yi nga xamanteni comme niñ ko waxé Dakar bu fongale mi and nañoo ak seeni militants ak sympathisants rien que pour liguer pour jox une majorité confortable au président à l'assemblée te lolu tay ji yalla defal nañu ko ndax yalla suñu borom dogal na ni assemblée am nañ fa 82 sièges donc ça veut dire que ni dinañu mën euh décider euh, en toute euh, vraiment liberté duñu am ben contrainte contrairement ak li nga xam mom la nit ñi doon mébét te loolu mënta am biir Sénégal kon ji euh dañ ci sante euh, di ci vraiment di ci féliciter aussi di ci remercier son excellence monsieur le président ndax tey jii boo gisee score bi mu am ko euh, dafa fekk ni amna lo xamanteni xamante mi ngi ko doon liggéey ci dëkk bi té tey ji dañ koy ñaax mu gën ci dolli mu gëna dolli mu gëna dolli ndax té ñëpp gis nañu li nga xamné ne daf ko mébét dëxin ko teg ko dugal ko ci plan Sénégal émergent donc muy lu melni buma jëlé exemple ay infrastructure yi nga xamanteni ni mi ngi ci nekk té tey ji infrastructure yo moom mooy fierté sénégalais yi mooy fierté sénégalaise yi bu ñu jëlee effort yi nga xamante def nako ci électrification rurale bi donc loolu yëpp fay nekk ay mbégte donc dañuy ñaax président de la république malgré peuple bi jox nañ ko bop waaye mu xam dafa wara doli dafa wara doli mu wara jëm ci askan wi ndax tey jii ndaw yi xale yi jox nañ ko bop ndax bo jëlé population bo xam dañ la naan à 70 ay jeunes yi jeune ci nekk nga am bi score bu ñu nee jeunes yi voté luñ la kon loolu jar na ñu ko kon président de la république amna aussi lu mu war redoubler lu mu war a dolli digganteem ak xalé yi da nga xamante problématique de l'emploi buñu ko mënul jéxal ba mu mat sëkk waye dina ci wara mëna mën ba def ci lo xamante dina euh absorber lu bari waaw ñi nga xamante ni ñoom la ñu tabb tey jii euh, ñu nekk euh, ñu war a toog ci péncum ndaw réew ñi réew mi du gënuñu ci Sénégalais yi gënuñu kenn ci senegal nit ñi dañoo bàyyi pour président wóolu leen teg leen fa waaye askan wi daf leen a wóolu jox leen seeni bopp ak seeni baat kon tey jii ñoom loolu war nañ ko mérité war nañ ko mérité ci taxawaay war nañ ko mérité ci jëf war nañ mérité ci ñom ci seen bop sax ci seen bop ndax le peuple représenter toute la population sénégalaise buñu jëlé région yépp jël département yépp ku ci nekk am nga kula fa téwal kon tey ni ngay ak ni ngay xolé war na à l'image de ce peuple là bi la la fa kon li ñu war a ma njëkk a def li ma leen di ñaax li ma leen di njëkk a wax moom mooy nañ fa dal ak jàmm foofu ñu jëm na sedd guy ci ñoom waaye bañ fa toogee nañu jàpp ni ñoo fa toogal as baatu askan wi mooy lépp loo xamante ni dafay wund ci jàmm pour réew mi te nit ñi soxla ko ndax lu dul jàmm jàmm ko gën nañu taxaw ci loolu nañ ci taxaw temm faj ko lépp loo xamante ni intérêt peuple bi la nañu ci taxaw te te jël intéret personnel teg ko ci seen gannaaw ndax bu doon seen jëmmi bopp rek ñoom duñ fa nekk peuple bee leen wóolu jox leen seen baat ñu taxaw fa kon bu président de la république amee confiance ci ñoom teg leen fa peuple bi ñëw réaffirmer ko confirmer ko kon ñoom ah ñun bu ñu waree góor góorlu it ñoom ñoo ñu war a gën a góor góorlu looloo tax ma ñaax leen ne nañ fa dal ak jàmm waaye nañ fa nekk ak peuple bi te nañ nañu am taxawaay bu mat boo xamante ni moom lañ leen peuple bi wóoloo ñu mate ko waaw uh-huh. uh-huh. waaw loolu moom li ma ciy wax rek man arithmétique rek laay wax dama naan bu ñetti nit àndee di jongante ñu ne euh, ndew jël na pee ma xujja jël na deux Ibra jël na troisième place. defe naa du du du ki jël deuxième place moy and ak ki jël troisième place pour wax ñun ño and raw ki jitu ki jiitu moom fala bu raw na nak da fay woné nak tamit que Sénégal démocratie bi dafa toll fo xamanteni ni nit ki ku japp ni ya nga ci sa deug dañ lay yobbu fi nga xamanteni fa la ñuy atté deug bo amé deug ñu jox la ko boo amul deug it ñu wax la ko ngal nak ku ci japp ni ya nga ci sa deug ba nga dem buñ la né amé nga deug nga ne d'accord fi la fali laay xamdu waaye bu ñu la nee amoo dëgg nanga ne waat fali laay xamdu parce que loolooy exercice de la démocratie loolu dafay wane ni Sénégal ak si na actuellement niveau boo xamante ni kenn mënu fi sàcc élection mënatu la ne ki nga xamante ne jàpp nga yaa ngi sa dëgg foo ko waxee it danañ la ci topp boo ci amee dëgg ñu jox la boo ci amul dëgg duñ la ko jox kon ñoom def nañu li nga xamante ni moom mooy seen cër jàpp nañ ni nañu dem ci ña koy dañ koy yóbbu jox ko ñañ ko war a jébbal te dëgg dana dana dana jib ci loolu waaw